waaw jërëjëf Anna tey ñu am mbégte dalal njiital mouvement des entreprises du Sénégal di MEDES nga xamante ne mooy amal xew-xew bu rëy ni ki ëllëg ci samedi gi ci Ndakaaru hôtel King fat Palace kon monsieur le président ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Jacques di leen nuyu bu baax di leen sant ci invitation bi. Mm. benn fan daanaka sax ay waxtu waa des ngir ñu amal cérémonie euh, corridor lan ngay yëg ak lan lañ mën a xaar euh, ci xayma déjà ci li nga def ci liggéey bi. ah mais yàlla rek euh, Jacques xam looy def presque léegi mu def ñaar fukki at. fukki at mm. juróom-ñaar yàlla da si may ndam boo wootee àddina bi yëpp ñëw. ah dañuy sant yàlla rek sant yàlla ba yàlla jox ñu xam-xam ñu mën a taxawal lu bi demee nii. parce que mhm. bu ñu koy taxawal boobu dañu xooloon ne lépp lu jëm si koom-koom amul woon dara loo xam ne dañ koy def di joxe ay raaya pour gën a ñaax ñaa xam ne dañ jël risque parce que euh, investir mooy jël ay risque mhm. donc ñu taxawaloon ko. Euh, xamuñu woon ne dina yegg si fii. tey mu dem ba wër àddina foo dem si àddina ñu wax la corridor bu corridor amee une semaine avant benn place du des ñëppay bëgg a ñëw si ay kilifa rek ñooy ñëw. kon nag euh, maa ngi si dolli waat di sant yàlla bu baax. di sant aussi euh, parent yi di sant ñëpp ñoo xam ne daal ñu may jàppale sa jàppale nañ ma si liggéey bi may def. Mm-hmm. ren ji ñu gis ngeen taamu ci app mot muy constance maanaam dëgg te mu sax fi lu tax. waa dëgg bu sax dafa xaw a jafe si ñun africain ak sénégalais parce que dañuy commencé dara door dara benn at ñaari at ñu bàyyi ko dem defi leneen après loolu ñu bàyyi ko defi waat leneen pour nga gis euh, nit wala structure nekk si dara sax si euh, dafa raar moo tax ren euh, at bu jot damay jël benn thème thématique ren ma ne constance moo gën Euh, méngoo ak euh, corridor yi moo tax xam nga li tax euh, fukki at ak juróom-ñaar ñu koy def at bu jot bu romb nga ne moo dàq beneen bi donc loolu constance la c'est booy xool aussi concept yi nu créé yëpp depuis ñaar fukki ak ñaar yëpp a ngi taxaw hmm. donc amul si benn boo xam ne ne surux na wala wàññeeku na c'est hmm. ñuy góorgóorlu ba at bu jot li ñu wax moom la ñuy def moom la ñuy def muy CFD muy conférence des femmes chef d'entreprise du MEDES muy forum de l'emploi euh, muy corridor bi tax tey ñuy def émission bi muy Africa Leadership Award muy diaspora des affaires muy magazine économique perspective muy université d'été yi lépp loo xam ne ne muy aussi assises économiques yi euh, ak yeneen si ñëw rax si léegi mooy comme FIEF forum international des entreprises francophones loolu yëpp ñu di ko def at bu jot yàlla dinañ si jàppale yàlla vraiment suturaal ñëw hmm. ba nga xam ne ne yëpp dañ ci am ndam ba ndam boobu wër àddina yëpp ñu naw ñu si parce que liggéey bi dafa set ba nga xam ne ne par exemple boo jëlee kër yi da ngay gis nationalité bu nekk da ngay gis ay américain ñëw gis ay français ñëw ay suédois ñëw ay suisse ñëw ay ivoirien ñëw ay malien ñëw ay waa Dubaï moo ñu dëkk Dubaï ñëw hmm. donc loolu dañ ciy sant at bi am na nañu presque téeméer invité yu jógee bitim réew Euh, sakk la ak sant yàlla. Hmm. donc vraiment euh, ñu ngi gën a delluwaat di sant di gërëm aussi ñëpp ñoo xam ne ñu ngi ñuy jàppale euh, si li nuy def muy suñu partenaire privé yi muy état bi. rax si dool yi ki ko jiite ak képp koo xam ne rek yaa ngi yëngatu si mbirum koom-koom yaa ngi yëngatu si mbirum institution yi même international dañ ñuy jàppale parce que liggéey bi ku nekk da nga si gis sa bopp. Hmm. tellement que dafa dafa set ba pare dafa nekk loo xam ne dafa am njëriñ pour pour pour pour réew mi. kon daal mën nañ ci séntu ay innovation lu bees ci bile édition waaye tamit li nga tàmmal gaa ñi mu xumb te dagan ci côté festif bi loo ñu ci mën a dig. waaw at bu jot ku ñëw rek bu paase da nga naan ci bii ma bële. Mm. parce que euh, dañuy siy def suñu cantonal cartel lu ñu mën dañ ko siy def dañ siy def koppar bu bari def si énergie def si suñu xam-xam. Mm. Euh, côté décoration côté effet spéciaux. Euh, côté scénario euh, lu nekk lañ ciy def ba nga xam ne ne euh, ku ñëw si kër yi rek da ngay kontaan waxuma sa waxu mënu bi mooy lu ñu reeree xam naa ñaayeen yi buñ fi ñëwee dañu kontaan parce que du reer rek reeru ordinaire reer reeraat la côté festif bi képp ku nekk Sénégal ak Afrique bëgg nga ñëw jouer si kër bi buy jege si dañuy jot tellement sollicitation dañuy jot sollicitation ba du ñu xam ci lu ñuy def mais incha allah ren dañuy jéem toujours sélectionné ñoo xam ne ñoo gën a xarañ si seen génération ren tamit noonu la def am na ñu ñeenti groupe yu mag yoo xam ne ne ñëpp leen xam si si àddina bi ñoom dañ ñëw aussi produire comme sa ñu comme li tubaab di wax on joint l'utile à l'agréable mm-hmm. ama képp ku ñëw si soirée bi daal da nga xam ne ñëwal nga si soirée sa da am fierté nekk africain mm-hmm. parce que bitim réew rek la ñuy gis genre dimension soirée yi ñu fexe ñun ba instauré loolu ba tey mu wër àddina ba nga xam ne ne fii Sénégal TFM moo koy def en mais lu met fanweeri chaîne tamit à travers le monde dañ koy génne c'est en dehors de ay coupe d'Afrique coupe du monde jeux olympiques c'est très rare euh, lu mat fanweeri chaîne ak lu topp di génn benn événement loolu yëpp nag succès bi ak liggéey bi ak full buñ ci def ak fayde bi ak euh, bëgg lu baax xam lu baax ñeme liggéey moo nu yóbbu foofu xam nga fukki at ak juróom-ñaar booy def dara sa boo wootee mu fees dell fi mu nekk ni euh, heure bi may waxee yow amul benn place bu des waaw sa xam nga ne yombul pour ñëw si soirée bi mm. wante benn place desul loolu dañ si sant yàlla at bu jot noonu lay demee donc euh, ñiy xaar bëgg ñëw ñoo ëpp ñu war a ñëw mm. kooku nag xam nga sant yàlla si la bokk daal ñun xam nañ ci dara ndax mm. ñun ñii dañuy buskile ñu dooma ligganteel <laughs> ticket mu nekk joxe tamit ay raaya corridor yi ci boppam. balaa joxe bi procédure bi yëpp ndax mun nga ñu expliquer. waaw procédure bi euh, dafa am ay catégories euh, am na ay catégorie entreprise la plus performante euh, l' entreprise la plus innovante am ay lu ñuy wax meilleur ménage homme ak femme. donc bu nu génnee nii rek ñu ngi commencé liggéey si bu déwén. Hmm. donc équipe organisation bi dañuy commencé def sélection dem di gëstu ba xam ne ne catégorie bu nekk. ngeen jël cinquante profils euh, donc cinquante profils mooy juróom fukk ah. waaw dañ jël juróom fukk si catégorie bu nekk après nag ñu commencé liggéey di éliminer ba mu des fukk fukk yooyu moom la jury bi di valider ñu soog a yónnee ay bataaxal pour wax ñooñu ne ñeen nominé na leen si kori incha allah bu 2023 bi. Mhm. ñooñu tamit tontu ne ah ñun kontaan nañ ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di xaar pour mun waxtaan nag yéen donc noonu lay demee après. Euh, évolution jury bi def ne que ñu éliminé waat bu mu des ñett ñett yooyu moom ñoom ñooy finaliste yi ñoom ngay gis seen présentation ci soirée bi si ñett yooyu nag ci la jury bi di gis di tànn ki ñu xalaat ne si catégorie boobu moo si gën a xarañ donc euh, c'est tout un travail liggéey bu bu xóot la. mooy comme ni ñuy def ballon d'or. comme ni def ballon rek waa kay bu def ballon d'or yéen journaliste yi yaa ngi di kii. Mhm. yaa ngi di euh, euh, participer. Mhm. noonu la mel. donc euh, ba pare ma yaatal ko léegi depuis presque fukki at dootu benn jury local rek quoi. xam bu nekkee local sénégalais sénégalais mën nañu ne ah, ay farantool la wala kii dafa xam kii mais dama ko ubbi léegi euh, tubaab yi bokk si président président Jean Loup Blaché moom mooy président euh, groupement patronat francophone. Mm-hmm. boo xam ne ne presque téeméeri dëkk ñoo si bokk. ak euh, Thomas Rome muy avocat américain bu ñu ràññee Amérique. Hmm. ak euh, ay hommes d'affaires ivoiriens guinéens euh, malien ak waa UEMOA yi aussi seen représentante résidente ak daal ñu bari daal ay kilifa ñoo xam ne ne bu leen tegalee ñoo mën nañu wax ne ah kii de vraiment xarañ na kii hmm. moo mën kii des fois mu am. tuuti tension parce que des fois dina am ñaar ñoo xam ne parce que dañuy ex aequo hmm. c'est il faut ngeen décider quoi xam nga mais damay naan toujours rek ñi ñu nominé nañu sant yàlla si fukk ak juróom-ñaari sénégalais ñu tànn la si ñett yoo xam ne ne yaa gën a xarañ ci secteur bi nga nekk sant yàlla mais suñu problème nag mooy comme noonu ko wax si nasaraan amuñu culture boobu daal mooy euh, ñàkk mm-hmm. moo tax euh, dañuy expliquer bu baax euh, ñi ñu nominé que nominé bokkul ak primé mm-hmm. mooy que c'est pas parce que dañ la nominé rek da nga war a ñëw am raaya waaw léegi dafa nag ñëpp comprendre nañ ko mais loolu tamit moom mooy def mooy jox euh, xorom mm-hmm. événement bi mooy pression bi mooy stress bi mooy trac bi sa ngi gis ay kilifa yu mag ñoo toog mais ragal euh, stressé mm-hmm. xamuñu lu muy demee waaw fu lu muy mujj <laughs> mm-hmm. donc loolu yëpp daal boo ko boolee daf naa ne moom moo tax euh, succès Corée bi ba pare mu nekk suuf si bu wër àddina yëpp. Hmm. foo dem si àddina euh, damay dem sa màkk ñu may wax waxu kori bi. donc euh, ñu si sant yàlla rek amoon xam-xam boobu ba taxawal ko. léegi mu def ñaar fukki muy am succès rek ñu si sant yàlla ba pare dellusiwaat si euh, moo bi nga waxoon sànq mooy constance. Hmm. mooy dëggu si lu ñuy def. waaw dëgg si li ñuy def ba pare di ko def daal continuer di ko def waaw dëkk si daal moom moo am solo mu mujj rek mooy comme li nga lim sànq ci ay concept ñu bëri lool ban nga jàpp ni moo gën a diis yoo wala moo ko moo la gën a yëg waaw mooy euh, forum du premier emploi mm. kooku moom ku ma xam-xam ne boobu mooy sama concept daal initié na comme ni nga ko wax lu mat fukki concept mais forum bi mm. dafa nekk jaamu yàlla dama ne jaamu yàlla foofu la yem parce que at bu jot damay jël ay junni junni xale. Euh, tàngat leen indi leen dakaar parce que si bari si dëkk yi si biir Sénégal la ñu dëkk. Hmm. Euh, yónnee leen xaalis ñu paas ñëw euh, fexe ba dalal leen Sénégal si hôtel yi. hôtel leen ay bus. loué hôtel bu gën a mag si hôtel yi parce que dama bëgg aussi ñoom tamit ñuy ñuy gént. Hmm. ñuy rêver donc bu ñu ñëwee King Fahd Méridien. ñu ne ah fii la ñuy gis Macky Sall fii la ñuy gis yeneen président yi fii la réunion yi di am nga gis leen ñuy photo nga gis leen lu ñu kontaane toog si jardin yi euh, mu indi leen traiteur ñuy lekk comme ku nekk restaurant <laughs> loolu yëpp xam nga da nga leen dundal quoi si ñoo xam ne ñu si ëpp banlieue lañu jógee ñu si ëpp si àll ba ñu ji fu nekk lañ jógee Dagana Saint-Louis Sokone euh, Ziguinchor Kolda Vélingara ak yëpp hmm. donc xale yëpp nga dajale leen ñu jàng tamit ba am di jaasa mais amuñu amuñu ku leen taxawu. Mm-hmm. donc euh, boo leen taxawoo noonu ba ñu pare ñu am xëy. Euh, sa xam nañu Sénégal metti na métti boo xam ne boo amee xëy euh, lu mat fukki doomu aadama ngi sa ginnaaw donc dama naan jaamu yàlla foofu la yem. ba mm-hmm. pare nag li si gën a neex mooy foo ti tukki si àddina bi rek da ngay dajanteeg ñoo xam ne dañ naa la kat man yaa ma jëkk utal xëy def na ñaar fukki def na fukki ak juróom def na fukki at ak ñeent gisoo ren. ki nekk président wu euh, jury hmm. euh, kii bi euh, corridor bi directeur général de banque la moom ñu ñoo ko jëkk hôtel xëy def na fukki at ak juróom-benn donc ba tey muy dem di dem ba nekk directeur général banque ba nekk président jury donc xam ne ne àddina dafay dox. Hmm. et puis def lu baax rek moom solo. Hmm. loolu leen ciy jaamu yàlla bi ma ko taxawalee dañ xalaatoon dama bëggoon doon politique bëgg am xale yi mais ñaar fukki at lu topp maa ngi def toujours. sa dafa diis. parce que c'est gratuit parce que premier édition bi dama na woon ne kenn du fay dara mais àddina xam ne dafay dox. Mm. dafa changé boobu suñu budget bariwul woon fukki millions ak juróom tey presque trois cent million la. loo xam ne ne sa ñaq ngay jël ak euh, say partenaire jàppale la nga mun ko def mais defar ko ñoo xam ne xamuloo leen rek da nga siy jaamu yàlla daal hmm. dimbali leen parce que da ngay xam ne ñii seen waa kër seen waa jur sonn nañu ci ñoom ba nu mën a jàng ba am ay lijaasa mais après amatul dara def toog di ataaya wala def grand place wala di def ay liggéey ambulant wala di taxawaal yooyu hmm. nga fexe bu utalawaat leen xëy ñuy hmm. góor ñi am jabar jigéen ñi am jëkkër constituer seen famille am kër am oto Euh, réussir kooku nag dañ ci sant yàlla. moo tax nag euh, concept boobu duma ko booleek benn yeneen yëpp neex na. am na luxe am na glamour. Euh, am na tukki am yu bari mais jàppale ñoo xam ne dañu sonn. ba génne leen ci ndóol bi ñu nekk. kooku daal pour man amul prix. ñaar fekki at ak ñaar maa ngi def. di ñaan yàlla may ma kantam di ko def dem naa ba wax samay collaborateur ak samay doom yëpp su ma demee ba mënatuma ko lépp la def. ngeen góorlu ba forum bi ñu kon ne di ko def même yàlla na yéex ba su ma fi nekkatul tamit ngeen ñu def forum bi jàppale euh, xale yi nekk si biir nool mais xale yi jàng ba mu lijaay sa sa seen waajur yi amuñu doole ngeen fexe ba uti leen xëy kooku yàlla rek moo lay fay sa fayu yàlla moom euh, amul àpp donc moo tax di si sant yàlla bu baax a baax a baax a baax bi ma joxee xam-xam boobu xel boobu ak surtout générosité bi waaw parce que loolu mënoo ko boo généré wul mënoo ko mm-hmm. def waaw parce que xaalis bi nga siy dugal at bu jot mën nga si tabax ñaari immeuble R plus 6 mm-hmm. yoo xam ne mu nga ko luwe at bu jot boo ko defee rek ñaar fukki rek imaginer ñaari ñaati <laughs> immeuble nga yor di nga am quarante quelque wala cinquante immeuble mm-hmm. mais def ko si nit ñi rek yàlla li mu lay fay moom amul prix donc sant yàlla bu baax xamoon ne daal concept yëpp boobu mooy mm. sama concept from du premier emploi <laughs> jërëjëf yow yaayu président bu MEDES di mouvement des entreprises du Sénégal nga xamante ne mooy waajal lu rëy ci samedi gi kon muy corridor sëñ bi Mbagnick Diop ñu ngi lay gërëm bu baax maa ngi lay sant Jacques euh, di la gërëm di la sant di la félicité yàlla yow la def ci bopp rajo bi ngeen di def euh, liggéey bu rafet euh, émission bi matinal la ma koy déglu suba bu jot parce que may teel a jóg mm. muy Isabelle muy Fatou Thiam yow ak euh, yeneen émission yëpp ngeen nekk ay xale mais xale yu xarañ gëm li ngeen ci def parce que àddina loolu da ngay gëm li ngeen def. Euh, ngeen gëm ko engagé wu euh, am benn sérénité bu nekk si yéen xam ne ne ñëpp a leen di respecté ñëpp da leen di naw sa loolu la àddina moom bul gaawantu moom laay wax toujours si émission yu mag yi may def si bitim réew ne leen dafa am ascenseur ak escalier. xale bu yàkkamti ascenseur ngay jël yéeg bu kaw léegi vingtième étage. bu fekkee ne nag xam nga àddina escalier yi ngay jël di ko yéeg muy metti ngay onk di toog di di wu di dem ba yegg vingtième hmm. yow mi def coono boobu ba yegg vingtième ak ki jël ascenseur yi doo leen benn ki jël ascenseur bii buy daanu daanu bi day metti mais yow bu góor góorlu ba yegg si kaw doo gaaw a daanu parce que xam nga leen mooy coono hmm. àddina donc àddina daal noonu la demee ma leen di féliciter encore euh, à travers euh, ta personne hmm. euh, rajo bi yëpp maa ngi leen di gërëm di leen euh, ñaanal man tamit fu ma toll. parce que ñu ñoo bokk miir bi daal. Hmm. waaw même mu yàlla defee si kaw ñu ñoo ko bokk ñu ñëpp ñoo ko bokk. dootu mu déglu benn rajo def naa léegi mu def fukki at <laughs> sama otoog sama kii hmm. sama kër yëpp réew mi rek laay déglu. Hmm. xamatuma si lan ma xew si yeneen rajo yi mais après di apprécier liggéey bi ngeen di def. donc tey c' est parce que may wax si rajo bi bëriwul. Mm-hmm. Euh, comme li may nit ñi di wax je suis un communicant qui ne communique pas. Ah. <laughs> Ah, su ma communiqué rek dafa fekk moom événement. nga am moyen waaw su ma am moyen. <laughs> waaw mais dama ne euh, ku miir sa wax dootu la déglu. Mm-hmm. et puis nga wax ñu dégg la dafa am solo. donc du micro bu la tàllal wala caméra bu la tàllal amul semaine boo xam ne duñu ma invité si télévision si rajo ma décliné. parce que dama naan rek euh, comme on dit en bon français le meilleur communicant c'est celui qui sait communiquer au bon moment hmm. donc man ba ma gisee ma communiquer rek fekk ma événement yu mag yi mel ni c'est man maa ko mën a porter hmm. maa a yóbbu dimension bu mu nekk loolu moo tax je suis obligé ma communiquer mais bu ma paree rek damay mel ni monaat doot damay dugaat doot kenn dootu ma gisaat hmm. ba ba événement ñëwaat ah donc damay qualifier toujours sama bopp rek Euh, comme birima rek. su ma waxee ren balaa may wax ci déwén. Hmm. mais di si sant yàlla tamit. jërëjëf kon ñu amoon mbégte di dalal njiital MEDES di président Mbagnick Diop.